bëggee misaal ëllëg na mu yàggee ndax moom du jeex ak dund gii moom ni mu yàggadee ndax lu yàgg-yàgg day jeex dañ koy misaal ci ëllëg moom bu yàlla sàkkoon rekk menn picc menn picc dong dong muy fab peppi suuf yi bis bu ne benn pepp menn picc dong ak ni fekk suuf yi bare bis bu ne benn pepp rek lay jël koyit peppi suuf yi dana jeex te ëllëg moom du jeex kon nag dundug doomi aadama ni mu gàtte daa war a jéem rek farlu ci lu baax ndax bu dund gi jeexee mu tàmbali dund gu neex a neex te amut fu muy yem wala taala man na nga xam bi anna ikkarahuma ci naka seenu bari ñom ñaar ma kafratil afati andak bari barik ay gak aw tarkahuma wala seenu bay ñom ñaar li xaw fiha ngir ragal ay gak aw hadamil hudhuri wala ñaka teew ga fil qalbi ci xol ba lo lepp jaa min a'zamil ghururi bok ci gën jaa maggi ak waru mune nak ngay jëm xam-xam beeg jëf ji di sell waaye loo leen baril baril baril te selluñu rek xamal ne ci waru nga nekk baril xam-xam ngi jëf ji te ak sell amu ca ak waru la ba te itam nag ne man daal xam naa ne su ma dee jéem a jëf wala mooy jéem jàng itam duma ko mën a sellal kon nag naa far bàyyi duma ci sàkkoonte xam-xam du ci sàkkoonte jëf jiwu ba tey ne xam naa ci saa bopp ne bu dee jëf du sell la bu ma dee jéem jàng duma ci am yéene ju sell faaw rek du baax kon naa bàyyi loolu ak waru gu rëy rëy ba tey it ne man daal duma ci jéem a jàngante du ma ci jéem a jëfante ndax sama xol ci boppam moo ci dul nekk mooy duma ci amuk teewlu dagam du ci amuk teewlu nag moom te teewlu ga moo ci am solo damay bàyyi rek benn yoon kooku mu ngi bokk ci moom it waru góorëy muy bàyyi ko ci seytaane ndaxam sax teewlu gi moom dañ koy taamu ci xam-xam bu ne ak jëf ju ne waaye nag na jëf rekk te yaakaar yàlla may ko teewlu googule jamono yam gën a ñàkki ak teewlu ci jëf jaag la mu yëngatu du teen rafet njootu rek te ñaan yàlla te def rek xëy na yàlla fekk ko ca la ko jafe lépp wëlbatiku yomb seytaane mi nga xam ne mooy noonu nit day jéem rek nit du def mukk lu baax na muy fexee ba du ko def nag yu bare bari dana ko ci jaare yàqum xelam ca loola ne ko lii boo ko defee nangam ak ki nangam mu daal di bàyyi kon jaam bi nay jéem xam-xamam ak jëfam di bari tey sell mu ci amuk teewlu waaye nag su fekkee ne sell ga gis na ne yóbbu ko ba tewlu ga yóbbu ko yit na dafa ndor ci mum rek di gorlu te yaakaar yàlla wëlbatiku xettali ko ndax ak mujj rek mo am solo mu yaakaar rek nga yalla defal ko mujj gu rafet wa tarku ka sak bayyi at tawbatu tu khawfa an ta'ada ngir ragala delu ilal mahasi jëm ci moy ya kay iblisa taxem iblis la almari di kay aji fetteerlu ba tey nee na ne man daal bàkkaar bi moom gañe na ma ba noppi jërul ma di ko tuub ndax xam naa ne su ma ko tuubee itam dama cay dellu rekk loolu moom bokk na ci pexe yi gën a rëy di fexeel doomi aadama wan ko ne ko yàqu nga yàqu goo xam ne ak defaru wees na ci yow seytaan day fekk ka nekk ci lu baax mu nax ko ne ko yow daal raw nga ba noppi doo yàquleeti mukk mukk fekk nag ka nekk ci lu bon mu naaguloo ko yërmande ne ko yow daal doo jagati mukk mukk kon nag jaam bi lu ko yàlla nattoo ci xeeti mooy yàlla yi lu mu bari bari ak lu mu ko gañe gañe nay farlu ci saa yu defee mooy yàlla ga rek réccu ko ñaan yàlla jéggal ko donte sax bis ba dana ko ci def ay yooni yoon sarti tuub moom muy rëccu gi ak dogu ci bañ caa dellooti te bàyyi ko fa saasa saa yu ko jaam bi defee rek na xam ne loola yàlla jégal ko kon nag lu bàkkaar yi bari bari nay jéem a rek yàlla mën naa mujj dimbali ko mu set wecc tuub tuub gu sell bañ a jegeeti benn te ku jaaral ci ay bàkkaar walbatiku tuub ko day mel ne ku ca mësta jaar at taibu min az-zambi kaman la zamba la dañoo wuti sax ci ku mësta jàdd def benn bàkkaar moo ki nga xam ne daa bari ay bàkkaar te bari tuub kan moo ci kën ci ñoom ñaar ndax daa am addis boo xam ne xayrukum kullu mufattanin tawaab ay kathirul ibtilaa'i bi dunuubi kathiru tawba hadis ba dane ki gën ci yéen mooy ki nga xam ne bari na lu muy jàdd lool waaye dafa bari it lu muy tuub lool lool walaay lu mu xam-xam afdalu moo gën ak yow sama bokk minal xamali ci jëf wa ussuhoo te moo di fondement am mooy cosaanam fafaasa texe na man ka nga xam ne hasala amna na lëxoo ñeel ko dana bañu ñu juf, xam-xam ak jëf ne la ñoo di yaar yi nga xamne ci lañuy amé amee texe ak mu ne nak taxut ñu dara daraja xam-xam upp dara daraja jëf ndax bu xam-xam amut jëf du mëna am ndax kuy jëf te xamut la muy yàq muy ëpp la defar yonent bi neena won sax man salaka tariqan yaltamisu fi ilman sahala Allahu lahu tariqan ila al-janna ku soobu yoonu sàkku xam-xam xamal ne yalla yombalal nako yoonu dem ajana lakin nama tamaruhu waaye nak meñatam kan nafhi ni la fi amali nek na ci jefe bi ci mom fa ku nekkal dal jamhi di boromuk bolé yoy yaara mu ne waaye nag xam-xam kat li muy am njariñ mu ngi ko rekk ci nga jëfe ko dafa mel ni garab garab ca dëgg-dëgg mooy am meññet mooy am ker nga xam ne bu garab gi amutoon duñ mën a séentu meññet am walla ker waaye nag garabu keese goo xam ne amul meññet amul ker itam day daal ñàkk njariñ kon nag faaw na nga jéem a boole xam lu baax te diko ko jëf ngir yàlla xam safaan ba te diko moytu ngir yàlla qaliluhu aji néewam min xilmi ànd xam aktharu moo gën a bari tawaaban ci ab yool minal kasiiri ci aji bari ja maha jëhlin ànd aku réer ba amul benn xeetu sikki sàkka ci loolu ne amul benn nattable ne jëf ju néew ju ànd xam moo gën jëf ju bare bari bu àndut ak xam loolu amul werante naafi'uhu aji jariñam nag moom xam-xam allazi mooy xam-xam ba nga xam ne alfata cam sa taallama xamlu na ko lillaahi ngir yàlla jàll màgg na waxdahu moom rek wa allama te mu jàngale ko xam-xam ba am njëriñ nag mooy ba nga xam ne ba ko koo koy jàng sàkk ngërëmul yàlla dong dong moo tax mu jàng ko gannaaw ba nga ko jàngee ba noppi tam mu wëlbatiku di ko jàngalewaat te yàlla rek tax xam-xam mel noonu moo gën ci xeeti xam-xam yi laamaa du caagéenu ba nga xam ne tool li ma xam loof na ko miraa an ngir werante wariyaa an ak ngir ngistal awil mubaahaata wala puukarewoo ga bisi ci moom fa na nga xam wala lësi du caagéenu ba nga xam ne suy yidat rëbboof na adduna adduna bi ci moom li xub bi jaahin ngir sopp daraja wa maqaamin akub maqaama naabihin bi aji yëkkati ko wala lësi du caagéenu xam-xam ba nga xam ne yutala bu def na ko sàkku li taxayuli ngir fexee bi ci moom li sarfi kulli xalbin ñeel walbati bépp xol faaqil na nga xellu xam-xam li muy baax baax day bari yu koy yàq ndax la koy tax a baax mooy niñ ko waxee mu jàng ko ngir yàlla di ko jéem a jëfe ngir yàlla di ko jéem a xamle ngir yàlla la koy yàq nag mooy ñàkk sellal ci jàng ga xam-xam ba ni ki di jàng rek bëgg a bari xam-xam ba ne moom daal boroom xam-xam bu mag a mag la wala bëgg a mën a werenteeg boroom xam-xam yi walla puukarewoo xam-xamam fi seen kanam wan leen ne leen maa leen raw wala xam-xam bi wut ca lu may àdduna rekk ak wëlbatee ko xol yi ñu wut si ko yéene yu demee noonu ak jublu yu mel noonu mooy yàq xam-xam ba ba mu soppiku lor te fekkoon ci cosaan xam-xam njariñ la woon moo tax mu tekki ne fa kullu man képp koo xam ne taallama xamlu na alxolooma xam-xam ya bi atinaa ànd ak sonne li haadihi l ashiyaai ngir yile yëf walam ya tub te tuubut xablal mamaati njëkk faatu ga wala kibari ak mage ga mu daari kan mbir mu ngi aji dabaatal maa la nga xam ne faataxoo rawoon na ko waxta sixari ci waxtu ndawe wa falaa kon déddi ko ñeel yow ma su'aali ci bisub laaj ba wal xisaabi ak xisaab ja siwaa wabaalin ndare musiba wa malaamin ak yeddeel wa xazaabin ak mbugal li anna ilmahoo ngir naka xam-xamam ba yasiiru dana mujj xujjatan aw lay xadul ëllëg alayhi mu daanu ci kawam faxsha na nga ragal tilkal xujjata woowee lay ku jàng xam-xam ngir yi demee ni yi mu wax rekk maanaam daal jàng ko te yàlla taxut la cay baax daal mooy mu teel a tuub teel a dabaatal la ko rawoon jublu ci boroomam jublu ci sellal ndax mu dabu la ko rawan waaye bu fekkee ne jàngutoon ngir yàlla jëfewutoon ngir yàlla wéy ca noonu rek ba faatu kon bu bis pencee mooy gën metti mbugal ndax nee nañu ku xam te xam nga jëriñu ca mooy gën a metti mbugal bu ëllëgee moo tax mu nekkoon kon bis ba ñuy laajee ka fay ay jëf dafa am lu may musiba ak yaraange ak mbugal ndax kon xam nga mu xamoon day ku aw lay wu koy yey waaye du soppiku lay wu koy taxa yey xujjatan yi bokkut ak xujjatan la xujjatan la mooy lay wu koy amal njariñ wu koy taxa jàll xujjatan yi mooy lay wu koy tee jàll maanaam moom ndegam xamoon na rek dañ ko wax ne ko yow xamoon nga ki xamul sax mën na ne moom xamutoon fa fi ulumi aji jarini xam xam ya aydan batay ma moy xam xam ba nga xamne afada jarina sahibahu baromam khashyata khaliqil hibadi ragal aji bind jamni wa dhul ak nango torox wa zuhda ak dadu aduna wa al adabi ak bari teggin wa jazabate mu ñor diko liftiqarin jëme ci aajo wo yalla wa tawaaduhin ak toroxlu wa taharate mu laabal alqalba xol ba wa xamaxate mu not nafsahu bakkanam wa manaxate mu fekk min maxaasi xaalixili wara ci moy yi aji bind bindeef yi amal la si ndaal xam-xam ba nga xam ne lam yekku nekkut xëkk saa niki nii falam yam naa du mën a fekk xadan ci ëllëg min naari rabbina ci sawara sunu boroom na xam waaw mu dellu ci xamle xam-xam bu am njariñ bokk na ci tegtal yi xam-xam bu am njariñ ka ko xam nekk di ku ragal yàlla tey ko weg ko màggal ko nangoo suufeel boppam te yàlla tax wan gannaaw lépp lu dul yàlla bari teggiin fu mu toll di aajowoo ak toroxlu jëm ci boromam xam xam ba tax xolam laab set wecc ci lépp lu yàlla gërëmut xam xam ba it tax muy ku not bakkanam te bakkanam bañ koo not xam xam bi tax muy sori lépp luy xeetu mooy yàlla te farlu ci topp ko xam xam mel ni ci dëgg-dëgg mooy xam-xam te mooy tax jaam bi mucc bu ëllëgee ci sawara waaye xam-xam boo xam ne demewul nii turu xam-xam wa rek moo fa nekk waaye ci dëgg-dëgg du xam-xam te du mën a fekk ëllëg sawara wa afdalul ulumi gën ji xam-xam ya bil itlaaq yi ci ak boyal itlaaq mooy ci lu amul teqale naa bii ak baa tawhidu rabbina modi di sunu borom hal tifaqin ci ak doppo wa ba'dahu nek na ci at tafsiru xam-xamu tafsir xam-xamu firi lil qur'an ñeel al qur'aan al hadith top hadith qalu wax na ko ad daymani ad daymani gannaaw bam ne xam-xam ak jëf ji ci la ñuy amee texe waxit ne xam-xam mu ëpp daraja jëf daa bëgg a wax nag ne xam-xam yépp kat yemowuñu gënaante nañu appante daraja lool jëf itam noonu boo demee jëf yi gënaante nañu appante ay daraja lool mu tàmbalee nag ci xam-xam ne xam-xam bu nekk day la muy jàngale rek mooy tolloog dara jaam kon nag tawxiid moom ndegam day jàngale lu aju ci suñu boroom nañ koy gëmee wéetal ko kon xam-xamu tawxiid mooy gën ci mboolem xeeti xam-xam yi bu jàllee alxuraan mi nga xam ne wax yàlla ñu firi ko leeral ko dañ mën a xam la ci jaam ñu war a jàpp ak lañ ci war a bàyyi kon mooy gën ci xam-xam yi gannaaw tawxiid bu jàllee addis bi nga xam ne mooy wax yonante bi te mooy leeral alquran nga xam ni sax moog alquran ñooy cosaani xam-xamu shariha mooy ci ñoom la ñuy xam-xamu lislaam ñetti xam-xam yi tawxiid jiitu tafsir topp ca addis topp ca ñetti xam-xam yi ñoo gën ci xeeti xam-xam yi wa xayruha pëggan ca ñoom min baadiza ci gannaaw kii te mooy tawxiid wa zeyni ak gannaaw yi la yaar muy tafsir ak addis ilmu tafaquhin mooy xam-xamu fiq bi xëyri may nin ci lul fen soo weesoo nag xam-xamu tawxiid ak tafsir ak addiis moom xam-xamu fiq mooy gën ci xam-xam yi ndax mooy li nga xam ne moom la boroom xam-xam yi dégge ci alquran ak addis ba nag boole ko ci ay téere ba ñu mën koo jariñoo wa baada diil madkurati nekk na ci gannaaw yile yu tudd al alaatu jumtukaay ya aan yi danaa jublu xalal xasabi ci kem njariñal ku ne yaaxu daatu yéen way jubal ñi jam xu haadin aji jubal mooy yaaxu daatu kan naxwi niki naxu wal xaroogi ak xaroob wal bayaani ak bayaan wal luxati arabi ak langu arab wal mahaani ak mahaani boo weesoo ñeenti xam-xam ñee tawxiid tafsir hadis fiq xeeti xam-xam yi des dañ leen a ay jumtukaay maanaam boo leen xamee dañu lay dimbale ci nga mën a géeju ci yenti xam-xam nga xam ne ca dëgg-dëgg ñooy xam-xam ndegam nag ay jumtukaay lañu lay dimbale ci nga mën a géeju ci yent yee kon duñu leen yemale dara ji ñoom ñëpp kenn ku ci ni daal kenn nam mën a dimbalee ci la nga bëgg rek noona la njëriñam toll kon nee nañu xam-xamu naxwu ak xam-xamu luxa ñu ëpp njariñ ci mboolem xam-xam yii ndax ñoom ñoo lay may nga mën a gëstu xam-xam bu ne boo xasee xereñe luxa maanaam baat bu ne la muy firi ak lañ koy jëfandikoo xam naxwu buñ tegalee baat yi nu muy tegaloo ak tegale ba nu muy joxe ci maanaa yooyu yaar moom mëni su ko ñàkk aajowoo ci mboolem xeeti xam-xam yépp te boo xësee man rekk daanaka gëstu moom daal di yomb bu baax a baax ci xeeti xam-xam yu baree bari su ko defee xarobu mooy xam-xam bi jàngale wàllu wayu arab yi ndax lépp ci secret wax arab yi dañ koo dugal ci biir seeni way nga xam ne man way arab yi ak xam la ci aju day tax nga dégg bu baax loxob arab bi ci boppam daal di mën a géeju nag ci yee nga weesu muy tawxiit ak tafsir ak alquran ak hadis almahaan yi day dugg ci xulumul balaaxa xulumul balaaxa mooy xam-xam yi lay jàngal secret yi nekk ci wax da nga mën a xàmmee bu baax a baax alquran ñu féetee kaw mboolem xeeti wax yi ak gannaaw ba ni addis féetee kaw mboolem xeeti wax yi ak gannaaw ba ni wax yi waxkat yi ëppante daraja xam-xami balaax yooyu nag dañ cay jiital almaani teg ca albayaan mujje albadiya dañ yett waaye almahaani moo ëpp njariñ al bayan top ca al top ca kon xeeti xam xam yi dañoo bari te dund gi kon nak ngay seet da la ëppal solo nga jiital ko teg ca la ca topp nag ba fusa ba fusa dund yam rek nga xam ne foofu la dund ga yem wa afdalul amali gën ji jëf maa mooy ja nga xam ne limuna lëxoo ñeel ko fawaidu ay njariñ gaa ilmi ni ki xam-xam xadd sabata bab sax na yedd faxu di jiñ xan jëxli di jëxlin walis réeruk boromuk réer wa xubxin ak bonuk boromuk bon wa kullima ak lépp loo xam ne yenn faamu dana jëriñ li dir rachad yi ñeel boromuk jub wooma ak la nga xam ne yu saf yi dana sellal alxal ba xol ba waxoo moom nag maa mooy la nga xam ne uddiima saxaleef na ko wa in xulli la ak doonte néewaleef na minhu ci moom xaalahoo wax na ko alxakiimu aji xam ja xikam wa kulluma ak lépp loo xam ne saqula diis na xalal nufoosi ca bakkan ya ka misli infaaqin ni ki kem ak dundale li sax si ñeel jëmm baxi la joj nay na wa saw mi ak koor li shari yi ñeel aji foqle mooy ko bëgg lekk lool wal xumóoli ak giim giim mooy ñàkk def dara luy tax a siiw mooy nëbbu làqu li mu bu tax yi shuhrati ñeel aji sàkku ak ciiwte wat tafaddili ak ko gënal dafa wax xam-xam bi gën ci xam-xam yi mu jàll ci bëgg a wax jëf ji gën ci jëf yi gannaaw bu ñu weesoo gënale gi yàlla gënal yenn jëf yi ci coobareem nit ki moom ci boppam wax na ca addis ba ne la mu farataal ci ab jaamam rekk moom la gën a taamu ci ab jaam def ko nga xam ne la mu farataal moo gën la mu farataalut nga xam nañ ko sopp rek jaam baa koy def ngir yokku tuyaaba bu ñu weesoo nag ni yàlla gënale yenn jëf yi ci kaw yee des mënees naa wax ne jëf li gën ci jëf yi daal mooy jëf joo xam ne dana wees ka ko def jàll ci keneen keneen jariñu ca ni ki xam-xam boo xam ne ka ko xam ma ngi koy jàngalewaat mbaa ma nga cay taalif ñuy jàng taalif ya nga xam ne xam-xam ba ma ngay dindi réeruk ña réer di dindi bonuk ña bon ci kaw jàngale gam koy jàngale ba taalif gam ci taalif ñu koy jàng ka toppatoo muy wéy ak lépp loo xam ne rekk ab julit def na ko te moroomam julitam man caa jariñu ni ki gas ab teen ñu cay naan wala defar fu ñuy fajoo baa defar fu ñuy jaamoo yàlla ak lépp loo xam ne rek doomi aadama def na ko te nit ñi mën cee jariñu lu mel noonu day rey lool te bari njariñ ndax nit mën naa yàgg alaaxira ay junni junni at te lu tee jeexit ja di ko fekk kon nag jëf joo xam ne day weesu ka ko def jàll ci keneen man nga koo jiital ci jëf ya gën a am njariñ mu teg ca nag jépp jëf joo xam ne day sellal xol jëf ji sellal xol yaari xeet la ci indi benn bi mooy jëf joo xam ne dëppoo naag sunna maanaam yonent bi santaane woon na ko mu di ko def nag te saxal ko nga xam ne du ko jëndal tay mu def ëllëg mu bàyyi da koy saxal rek mu wéy ndax hadis ba dane al amali ila llahi adwamuha wa in qalla li yàlla gën a taamu ci jëf yi mooy jëf ji ci gën a sax ak doon di sax dafa néew bariwut beneen hadis ne man awadahu llahu ibadatan fa tarakaha malalatan maqatahu llah ku yàlla tamal ak jaamu yàlla mu bàyyi ko rek ngir yokkat ak mu sàppi ko yàlla mere ko meramu mu ñaawa ñaaw jekki-jekki jëf rëy rëy lu mettee mettal di bàyyi fa saasa baax na sax waaye amul solo li nga xam ne moom la saxal jëf ju néew ju baax solo kon jëf jëy sellal xol benn bàngoog ñaareel ba nag mooy jëpp jëf joo xam ne dafa diis ci bakkan bi ndax benn addis nee na afdalul amali ma ukrihat alayhi nufoosu jëf ji gën ci jëf yi mooy jëf jañu forcé bakkan bakkan da ko doon bañ ñu forcé ko ca jëpp jëf joo xam ne dafa diis ci bakkanu ko koy jëf loolu nag moom nit ñi dañ ci wuute kenn ku ne ak la ko diis bu dee ku nay génne alalam joxe ngir yàlla da koy diis kon nag ab nay joxe alalam day nekk lu rëy rëy lu mag te def alalam ci yoonu yàlla moo gën ci moom baril naafi naafilay julli wala naafilay koor ku bëgg lekk lool woor day metti ci moom kon nag woor moo gën ci moom muy def leen lu bokkut ak koor koo xam ne itam yëg na ci boppam bëgg ak siiw ak daraja ak ñépp xam ko la gën ci moom mooy rekk muy nëbbu boppam di moytu lépp lu koy taxa siiw ak luy tax ñu xam ko kenn ku ne daal la nga xam ne mu gën a diis ci moom mu wuteeg xelum teefu bakkanam bu dee jiyonteeg moom rek loola day daal nekk jëf ju réy ju màgg màgg wa aqbahul isyaani gën genjaboni boni ak mooy maa mooy mooy ga nga xam ne xassaahu wawal na xol ba taqsiyatan ak wawal wa ansaahu te mu fàtteloo ko taaxatan ak topp ñi nga xamee ne topp yàlla yi muy jëf gënante nañu mooy yàlla itam gën nañoo bonante mooy yàlla ga gën a bon nag mooy ga nga xam ne day wawal xol xol bi du bëggati lu baax kenn du ko ca mën a jëmale ku ko bëgg a jëmale ci topp muy bañ bu ñu nee mooy yàlla gi gën a bon mooy mooy yàlla guy wawal xol nee nga waxe woon rekk ne lay sellal xol yaar la jëf ju baax joo xam lu mu néew néew kooko da koo saxal teg ca la diis ca bakkan ba mu di ko yenu bañ a bakkanam ba tey kon mooy yàlla gën a bon te yorol xol mooy rek mooy yàlla goo xam ne kooko di caa sëgg rek di ko def di wéy ak nag gépp mooy yàlla goo xam ne bakkanam da koy bànneexoo ka neexlu bu demee nag ba xolam woowu am na yent yoo xam ne nee nañu daañu ko ca dindee ba ci jëkk mooy mboolem béréb yi nga xam ne dañu fay